làmmiñ wu mucc te sell tegtal la ci ni boroom am na lu ko yàlla yen yàlla ku mu yenul du sellal sa làmmiñ te bu sellalee sa làmmiñ barkeel ko waaw ndeysaan dama gis ca weer wële ci benn majal la bu jógee Paris benn tubaab wax ci nii moom daal gisul rawukaay lu dul lislaam waaye nag fi yaakaaram tase mooy fi mu jànge alxuraan ndax ndekki alquran kenn organisé wu ko waxin wa dafa pëccëxoo ni ba daal tas na yaakaaram ba tuub gi mu doon bëgg a def dootu ko tuub bi ma ko jàngee ma yërëm ko ndax ku ñu sellalul sa làmmiñ foofu rekk nga mujj gis nga yàlla ni mu waxe ci alquran li mu bind yépp noonu la ci def ndax du géomètre looloo tax yàlla du géomètre créateur la du sàmmonteeg benn principe seetal àll ni mu rafete lu ko rafetal indi garab teg ca tund teg ca dex teg ca tool moo rafetal al benn bokk ceeg morom alquran it noonu la mel boo bëggee yàlla di rëdd di la rëddal di teg comme ni ñuy def nii booba ñaaw na waaw waaw booba ñaaw na lolou la bëgg mom mën na ko ndax dafa mëtadi waye yalla mi mët ni muy bindé rek lay binde ni nit foré ci mom te bu nit juddo légui do ko bëgg for ndax yamu tak ah mi ku ko bañal yalla do and ak mom ndax mom lolo ko so bo nak bala ñu raxas ko ci biiru ndeyam sang ko dagg luttam ci biiru ndeyam ñawal ko fa turke xastaan mu solu ba noppi nga wutal ko laafa ak lunet ak kawas ak dàll mu génn ak sañteem wuti jumaaje danga nax sa bopp yàlla bindewul noonu dafa génne deret tax ko lutt ànd ak moom boo ko xoolee mu ñaaw ba bugg dee ñu for ko mu yuuxu ci sa loxo ba ba ñu ko sàmm di ko sang di ko dimbale ba ba moo yanj yàlla bindee noonu waaw waaw ah, ah. moo tax benn mbokkam ñëw fi ci fan yi ma di ci waxtaan ak ma ne ko man daal dafa am lu ma jaaxal mu ni ma lan la ma ni ko dama gis ñii àgg xam-xam fi ñu ko àgg dëgg ca weddi yàlla ma ni ko te yow nga bokk ak ñoom àlluwa ak ni nga gëme yàlla ma di la laaj lu ko sabab mu ni ma xam-xam jàng du weddi yàlla mukk mu ni ma jàng du weddi yàlla ñàkk yar mooy weddi yàlla hmm. Hmm. Hmm. loolu rek la du leneen mu ni ma bare na ku weddi yàlla te sukkandikuwuloo ci sa jàng ci sa ñàkk yar nga sukkandiku pour weddi yàlla lu mooy li nekk waaye rek lu waay wax mu bëgg la naqadi keneen wax mu lu la neex nga fàtte lële ndax am na xalaat xalaatkat yéen ñëpp xam ngeen ko Roger Garaudy philosophe bu rëy la wax na waxin boo xam ni ku lislaam ci sa ndono dana la bégloo parce que dafa wax ni néeg bi ñëpp jëmoon di fa serloo ji nee na lislaam jiitu na fa nee nag bu kenn bañ mu ganale la waaw <laughs> ah waaw néeg bi ñëpp jëmoon pour di fa serloo ji nee na lislaam jiitu na leen fa nee na kon nag kay neexal deret rek mu ganale la waaye bul bañ mu ganale la ndax bo bu la ganalewul doo tax am ku la ganale wallaay ndeysaan